With Q Football, you can get up-to-the-minute updates whenever your favorite team is playing in their league or in cup competitions. With Q Football, you can get details of any match that has ended for only $1 by sending your team's name to 411. Just send your team's name by SMS to 511 and receive one month's worth of goals, halftime scores, and full-time results of your favorite team for only $10 a month. For more information, call customer care on 111 QCell, Sunyabus, the only 3G plus network in the Gambia. Ya mereka am ana waa ga ni la ana waagaan di nelaw de ba jam jógal xëyu boo jógee kay da nga am xilaa kay waaye doo jóg rek uy ni jee ah mënoon nga ko wax damay nelaw ma ko may woo sax man la maa ngi nii waaw nagam def de ngi ci xam nga rek yow tey bañu woo si atali bi déedéet xam nga dama noppalu wax ji dafa bari hmm. waagaan waagaan wax ji bari nag moo tax gis nga tapetaaw bi ma tak nii sax loolu moo tax ma tak ko ndax wax ji wàññeeku sa suma war rek dafa ubbeeku gars yi di wax rek waaw loolu moo tax ma tak petaaw bi yàlla ma la waxoon ba ma la joxee suma ñaw nga yaaxa ko ma ne la suma la joxati suma ñaw nga ko di ma fay yow dama yàq sa ma joxaat la suma ñawi jabar nga yaaxaar ko yow ba nga mënu ci ñaw nga war a bàyyi li ma waxoon lool laa def jir nga dégg ma ko noon boxal ma ko ci ndeyjoor bi nii hmm. léegi nag boo bu ma ñëwee nga naan ma di ma la waxoon ak nga def dafa uti. man suma xaalis laa soxla daal. déedéet déedéet dafa yomb yow nga nga ma jël suma taay ma ma ñëw ba noppi nga naan ma. ma ñëw yëpp dara baaxul si nga. déedéet dafa ko mënoon na nga xam. kii de ma ne bu ko jox loo waay kii de maa bëgg a foto waay ñëw fii di ma suusal rek. waaw xaaral mbaa jàmm. dama ah. Hmm? Ah. yëpp. dara baaxul si déedéet jarul ngay wax di yàq suma déet de eh, te man la ma ko waxoon si loolu laa ne ba tey dama fay suma ñaw balaa ma fay jóg léegi xam nga ma laa ñaanam boo yàkkamtiwul dama ñu wàññi ci nii bu ngoonee jaaral atelier ma jox la xaalis bu mu la amee dégg nga jaaral foofu rek ah dégg nga dégg nga dégg nga dama ko tapale moo tax nga koy fay waaw dinaa la ko jox baax na hmm. bu toon moom bàyyi foofu ma te góor gi jeex na yëpp jeex na yow nii rek ngeen di def di yàq jëri nit ñi rek lii moo tax dëkk fi kenn mënu fi am dara yow man lan laa da def ba nga ñëw fi naan ñëw bi nga ne ma képp ko ci ndeyjoor bi léegi nga ñëwaat ne naa képp ci càmmoñ bi loolu mun naa nekk te yow sa piis boobu sax dafa baaxul piis bi maa ngi koy ñëw mu ngi parasté ku rek lii ngeen di def amat ki yow ma dara lu may wax ak moom waaw de mais ma rek déglu ma déglu ma ga ah, nga lu ma la bëgg a waxal adduna bii jarul ngaa daw ba daanu loo yàqamti ba di yàqule yow ñun ñaar ñu ngi suñu benn atelier ngay jàngal man a gulaan ah, xasi dégg nga ñu ne ñu ngay jaay atelier rek dem nga jëndi ko beru fa di ñawal sa bopp semence gii ñoo tax jëfar borom métier fii muy tayoor muy muy fiita muy weldaman muy dara am jaratu dara si dëkk bi parce que dañ lay jàngal benn ñaari weer ñetti weer nga commencé mun tuuti rek dem ber sa atelier di yàqal ñeneen ñi yàqadere te pourtant nag métier gi fu mu nekkoon ba léegi mu ngi fa ña ko manoon léegi ñu ngi ko man waagaan boo déggee ñu ne ku mokk boo mokkalee ber sa daara dafa fekk nga dem ba mokkal sa sëriñ bu la jàngal óor ko ne kii mokkal na mu eewi si jàmma oo oh, ñun ni ñi toog mu ñaanal la ubbi la sa atelier ñaanal la ba pare jox la lum laa jox bu boobaa loo fa ñëw mu barke loo fa liggéey mu barke waaye yow boo ne da nga dégg ku nekk ubbi na atelier rek nga ne ter dem ubbi yow man loo dara nga dem di yàqal nit ñi seen yow xam nga ne góor gi tey ko xamutoon tey ngeen dem fu ma xana doonee benn jigéen ñu wax. waaw léegi defal na déglu ma déglu ma ñëwee di ngeen fay. xaw ñu noonu de waaye kii moom dinaa ko fay. waaye xam nga ne kii tey su nekk doon koo xam ne amal amal na ma ama am dégg na ma wala am na am na am na understanding kon tey fu mu nekk nii yaa nga yéen a fu mbaxana doonoon benn ne ma yóbbu xool ne ma yóbbu bu la tamit yaa faa des ma ne ne ma yóbbu te yow ñii nga amel ñii nekk si atelier bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam naa ne ñoo yàq seen piis ba dina ñooñu yëpp soo leen demee nga yàq seen piis ñu yóbbu la eh, eh, si police ñu tëj la benn place sa mbokk yëpp ay jog kenn du mun a kenn du toog ñun ñëpp dañu jóg suñ soxlaa yàqu man de xam naa ne dan li lamañ mënu maa tax ma teg petaaw bi. ma ne petaaw gi bu bu petaaw bu mënoon si yow dara waa ji du fi taaw am ñu laay nekk si yottal yéegi. ma ne waaw dama cee xamul dara la comme petaaw gi nga yaakaar. waa ji bu dikkee ngoon ma ne mu ñëwaat si yow. lamañ daal du ma jàpp. du petaaw gi nga yaakaar waaw waa bu dikkee ma ne mu ñëwaat si yow. xoolal añ boobu. Cuban Tabac. It's a way to connect with your friends and family easily with yourselves. SMS chat, a meeting place. It's where we're at, Cuban Tabac. You can create your own private room, or you join one of our public ones like banter for news, music, and sports. Just send join to 555 and start chatting via SMS to keep up with what's going on. Not only is Cuban Tabac chat fun, each message costs only 5 batoots. Yes, 5 batoots. For more info, call 111 or visit our website at www.qcell.gm. QCell, soon your boss. Cuban Taba, it's a way to connect with your friends and family easily with QCells. SMS chat, a meeting place. It's where we're at, Cuban Taba. You can create your own... QCell, the Gambia's only 3G plus network. leadership is a contract. People vote for you because they expect you to